sportif. de façon globale d'abord dans les métiers du sport et les métiers liés au sport les métiers yi nga xam ne yëpp mu ngi nekk euh, ci ci wàllum euh, yaram ak wër euh, depuis depuis plus de 10 ans le ministère a été ci doon xalaat ci depuis parce qu'il fallait que nous élaborer déjà projet bi loolu def nañ ko depuis 2016 nous ñu élaboré projet bi ba pare recommandation bi ci jiitu woon moom le répertoire des métiers loolu tam def pour faire le répertoire des métiers bi il fallait maintenant élaborer les référentiels de formation manam jang mi li nek ci biir jang mi ak ñiko wara jangalé fait. yëpp ñu ngi ci doon mais xeyna qui li manké won moy ñun def en collaboration avec suñu yenen partenaires ministériels, parce que yoyu ay métier la te métier formation professionnelle bien que euh, vocation bi sport la mais métier formation professionnelle ministère formation daf ci am

Euh, sport lan la leen mën a indil en terme d' opportunité xaw ma naka laa ko mën a waxee mais loolu tey commencé wul tey je veux dire parce que bi ñu ko commencé comme ni ma ko wax bi ñu ko tàmbalee yàgg na mais dafa jot nag léegi ñu gën ko woon xale yi certes am na ci boo duggee ci site ministère des sports wala nga dugg ci yenn sites yi dinga fa gis mais xëy na xale yi amuñu xëy na curiosité pour dem xool ndax sport xëy na dañu xalaat ne tàggat yaram rek la xamuñu ne am na ay métiers yu bëri yoo xam ne ñoom mën nañ ko def am ci seen liggéey wala ñu def ko mun ci entreprendre donc loolu nak yeen lañ ci ñaan ngeen japp ci pour que euh, pour que wa sensibilisation bi gën a mëna a egg fa mu war egg mooy xale jot ci information bi ne sport au-delà de tagat yaram dafa nekk domaine bo xamné ku nekk war nga ci mëna gis sa bop ah, ñun nak euh, dans le cadre donc ci projet ben projet buñ doon def avec la coopération luxembourgeoise euh, identifié on nañ déjà en octobre 2020 ay métiers yo xamné de fallal donc walu fas donc par exemple ni dawal fas bi ñiy dawal fas yi ñi nga xam ño ño len di tagat ñi nga xam ño len di apporter ay soins yoyep yëpp ay métiers yo xam identifier identifié nañ ko à la base avec les populations au niveau de Louga pour dire que donc ça c'est ay niche d'emploi do xam intéressé na ay jeunes yo xam mën nañ ci exercer et ñun li nga xam ne ñun ONFP mën nañ ko apporter à ces jeunes c'est de normer ces activités parce que

Euh, développement filière yep la fi nekkal euh, filière est nekk si ci filière qui a différentes euh, utilisations traction hippomobile am agriculture am les sports hippiques comme équestre domaine dans lequel d'ailleurs nous, nous collaborons beaucoup ñu ngi avec le ministère des sports n'est-ce pas ñun ñoo bokk le bi des sports, donc état bi xam loolu xam ne pour nga développer structure yooyu muy course yek muy euh, sport équestre il faut nga am jumtuwaay yu bax jumtuwaay yooyu ça commence d'abord par un élevage performant élevage performant bobu moy nga tabax ay ara yo xam éleveur yi dañuy ñew indi sen jument mun am ay ay ay produits yo xam dañuy am performance au niveau des hippodromes mu tabax ko Kaolack tabax ko Thiès tabax ko Mbacké tabax ko dara jolof n'est-ce pas légui ak bu bu bu mucc ayib bi nak moy bu bu bu euh, Kébémer donc centre bu si n'ak am ay étalons de haute valeur génétique am laboratoire d'insémination artificielle kon yooyu yep n'ak nekk loo xam ne ku si liggéey il faut nga am xarañ bu si nak muy inséminateur yi docteur vétérinaire yi c'est des docteurs vétérinaires équin maintenant spécialiste équin muy euh, kat yi palefreniers yi ñooñu ñëpp dañ leen formé waat yóbbu leen ak ay partenaires muy à l'extérieur comme certaines ONG ci kaw loolu aussi ñu def euh, un programme de formation en maraîchalerie ni ma ko waxee léegi fas bu amul tànk moom euh, defe naa liggéeyam yàqu na kon nag loolu moo tax ñu ñu njëkk a def euh, des programmes de formation yoo xam ne ak ONG Brook, ak World Horse Welfare présentement ak le ministère de la formation professionnelle avec le centre de Thiès donc fu ñu nekk nii partie de muy euh, la maréchalerie a euh, un diplôme bo xamné ne nañ ko ci am wanté nak bi dafa yaatu dañu wara a dem ak acteurs yu bari chambre des métier sax si lañu normalement acteurs yu bari yo xamné war nañu identifier légui euh, des programmes diplômés au niveau universitaire comme en France par exemple dañuy dañuy niveler sen sen sen de 6 à 1 niveau 1 niveau 2 niveau ki ba 6 yooyu nak am lo xamné ne ay formation diplômante la li ay formation qualifiante la li ay ño xamné dañu doon liggéey ci biir amuñu dara ñuy jël leen qualifier seen kii bi donc lolu ci lolu lañu nak nag au niveau du ministère de l'élevage ak suñu partenaire yi nañ liggéey euh, formation bi vraiment atelier bi c'est une opportunité pour ñu réfléchir joxe ay directives yo xamné ça va aider cette école là qui est lancée dans ce ce processus. maa ngi tudd Kourañay man maay directrice générale bu IFM Sport donc tay luñu fi andi moy euh, tok waxtan chambar euh, nan lañu mëna def pour jox xalé yi xey euh, yoo xam ne ça tourne autour du sport parce que sport bi nam buñu né Sénégal nit lu muy ñëk xalaat moy moy Sénégal dañuy wax football bi ñu ngi wax ci basket bi natation bi ak yeneen sport yi fi am mais instant bi ñu tollu ni xeyna sport bi dundalul nitam donc xalé yaa ngi ci def seen kemte lay kàttan mais mën na am amaguñu ci formation bo xamné mo moo leen di permettre tay état Sénégal wala état bu mu mënti doon ne xaaral jël ndaw yi ni kat ma jox leen liggéey donc luñu bëgg def tay ak suñu ñi ñu àndal mooy jéem a yan formation lañu ñu proposer xalé yi jàngal leen que bu ñu xëy mën see am liggéey te aussi que état bi ak partenaire euh, yeeg yooyu mën ne ah yow mii am diplôme bi tay mën naa laa jël parce que wóor na ma am nga compétence li tax ma mën laa jël pour nga ñëw liggéey ci ak man. lu tax ñu bëgg valoriser joxaat gëdd sport bi ak métier wu sport bi moy que ne tey comme ni ma ko waxee sànq rek amna métier yo xamné yu bari ci sport bi euh dundalul borom donc ñun lu ñu war moy xol métier yoyu xol lan mo tax dundalul seeni nit def pour mu changer lolu jox len doole ba nga xamne tay xale yi dinañ ci mëna xëy ñu dund te buñ ko défé tamit dañuy développer économie dëkk bi ndax sport ku xamne sport xam nga ne sport amna amna ay patch yu bari yo xamne tay ji jii xëy na ñun xamuñu ko wala xale yi xamuñu ko yo xamne mën nañ sey dugg liggéey ci ba ba teral ci sen sen bop ak sen njaboot wa lolo tax ñun ñu jël ne pour suñu slogan wu bopp mooy que dañu war a defaraat euh, dooleel euh, dooleel les métiers du sport xam yan mooy métier du sport yi surtout